bokk na ci sunu borom tabaraka wa taala di gën a wattoo ab jaamam ci xeeti jaamu yàlla yi ma tudd mooy rafetal jëme ci waajur rafetal jëme ci ñaari waajur rawatina waajur bu jigéen kenn ci boroom xam-xam yi nga xam ne ay wootekat yu siiw lañ nettali na ab nettali bu doy boo xam ne moom ci boppam nee na moo ko gis nee na dama tukki ci menn réew ci réew yi génn daal di doxantu ci tefesu ak dex goo xam ne du dex gu rëy lool dex gu ndaw la taxu koo xóot itam waaye nee na fi may doxantoo noonu rek ma jekki-jekki jiit yoo xam ne ni mu rëyee naar d'Italie jiit yoo xam ne kéemaan la nee na benn bonaat génne ci ndox mi ma xool gis jiit ji ñëw war ci kaw bonaat bi bonaat bi commencé di féey di dem nee ma ne lii de kéemaan la ñàkkut ñàkkut lu xew nee na mu xuus di dem man ma topp ci ñoom di dox nee na mu jéggi dex gi ba génn naka mu génn ca suuf sa rek jiit ji daal di wàcc daw xel yu gaaw bi mu agsee ci suufu genn garab nee ma seen nit kuy nelaw nit kookuy nelaw am na benn ñàngoor maanaam jaan ju mag nee na mi ngi ubbi gémmiñ gi jëm ci waajooju di nelaw bi jiit ji agsee nee na dafa yéeg ci kaw jaan ji tàmbali di ko fet nee na tëlatul dara muy xalam ko di wëlbati ko di wëlbati ko ba mu yàgg mu tëdd sedd guy jiit ji wàcc demu yoonam nee na ma agsi ci waa ji yee ko mu jóg ma nettali ko li ma gis ma ne ko yow mii nag laa bëgg xam luy sa mbir yow ndax lii ma gis nii dug neen nee na mu ne man day dama yor yaay joo xam ne ku mage la maanaam màggat na ñaareel ba <clears throat> handicap la mënatula dox te it dafa silmaxa te it amatul mbokk ci kaw suuf ku dul man lépp lu muy def maa ko koy defal guddi ak bëccëg liggéeyal ko mooy sama itte saa bu ma yëgee ne nag noppalu na mi ngi nelaw mi ngi dallu béréb bii nga ma fekk may nelaw foofu laay ñëw dallu fi ba ci kanam ma jóg delluwaat ci sama yaay kon boo xoolee loolu ci ngay gis xikma sunu borom tabaraka wa taala kii nga xam ne bu jaan ji agsi woon ci moom def ko lim koy def bu faatoo soxna soose fu mu jëm ci àdduna kon ci ngëneelu topp ñaari waajuram ak defal leen lu baax ak liggéeyal yaayam jooji ci la ko sunu borom tabaraka aare kaaraange jëm go xamne sunu borom tabaaraku taala wat nako ba lor ju mel nonu dalut ci kawam koku de dalay wonne yalla moy ki gëna mag lepp moy ki gëna xarañ lepp moy ki ëpp yermande ëpp ab lewetaay doon ko xamne kep ku ñu wattu mo la wattu sunu borom tabaaraku taala neena fa allah khairun xaafisan neena kep kuy wattu wala ngay garder dara sunu borom tabaaraku taala mo la dàq garder wa huwa arhamur rahimin te kuy am yërmande itam sunu borom tabaraka wa taala moo la ëpp yërmande ndax la nga am ci yërmande moo la ko mosal doomu aadama nag du moom mooy tànnal boppam ay wayjur ndax su doon loolu dana am ñoo xam danañ tànn ñeneen ñu nekk seeni wayjur ñu dut ki ko doon waaye nit ki day judd rek fekk ñi ko jur jur ko su dee ñu aw aw yoon la nga santee ko sunu borom te xam ni fadlullah yutihi man yasha su fekkee jaaruñu yoon it nga muñ ko te nga xam ni loolu mooy séddab sunu boroom ñaari way jur nag ak nun mën a mel ñooy ñaari way jur moom mënoo fexe ba am keneen ku way jur ku moom bu jubee moom la bu dëngee it moom la bu toppee lislaam wala mu aw ci sunna santee ko sunu boroom bu jaaree ca leneen nit gëreumal def ak suñu borom té nga ñaanal ko waaye li am mom amna ba nopi ndax suñu borom dogal nako paré mëna to rectifier waat dogal ba bu la yalla baxé nga xam sunna gor lu ci ba for ci lool waaye rafetaloo jëme ci say wayjur yëgal ni daanaka sak am nek ci sunna nyering la dootul bareeti ndax di nga am galankor bu reuy bu gar ci sa kanam bo xamni ni ko fomp te mënoo koo toppale lu dul dangaa dellu gannaaw rafetal jëme ci say wayju yëgal ni mayit ma daldi yék ni suñu borom jallé ak bu day ñaari wayjur ñoy ñi gëna for ci kaw suuf borom baangi wax lu mel nonu ci suratul isra bu ngeen démé ci suratul isra sunu borom ma ngi fay wax ni billahi بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الظل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سنبرا من وقت آية جوجو te aaya ja kat li ci ëpp solo moo jiitu ca aaya ja mooy borom bi dañuy laa tajaal ma allahi ilahan axar fexeel ba am fayda yi keneen ku dut yàlla moom bul nangu mu nekk sa kilifa fexeel ba sunu borom bul ko wutal moroom fexeel ba leneen bul ko jox cërëb sun borom fexeel ba benn cër cëri suñu boroom yi bur ko jox keneen ku du suñu borom mu ni soo ko defee fa taquda ah su fekkee sàggan nga day ba jël keneen ku suñu boroom def ko mu nekk sa kilifa dinga mujj nekk ku nu yedd maluuman di nga nekk ku nu yedd ah maxdula nekk ku torox ku alku gis nga saa boo gisee kenn kuy jaamu sunu ku dul suñu borom wala mu jël lenn ci cëri suñu borom yi di ko jox ab nit yëgal ni kooku dana torox dana alku dana am yeddaange te it du am benn valeur fa sunu borom da nga nekk ku nu yedd fii ci àddina ak ci àllaaxira waaye danga nga alku ci àddina ak ci àllaaxira aaya jooju bi mu jàllee nag nga xam ni kon léegi nag mbiram suñu borom moom jeex na akub yonenteem sunu borom ni wa qada rabbuk yalla mom dafa daldi dogal nak faratal ci sen kaw ni alla ta'budu illa iyya bu jaamu jotey mom amal fayda ju doy ni bul jaamu kudut sun borom kep ku bëgg ñu jaamu ko day sak asaman sudul sun sun borom si mu sak suuf sudul su sun borom si mu bind ay mindeef yudut ñun kooka nak deug deug bu ne len jaamu len ma ñoña war nan ka jaamu waaye borom bi subhanahu wa taala mi nga xam ni moo sàkk asamaan ak suuf dugal la ci diggante bi nga dib jaamam mu ñu la jaamuma ma kooka li nga koy defal waroo ko defal keneen ndax loolu tooñ la ba tax sunu borom ni inna shirka la zulmun azim sunu borom ni yàlla dafa farataal ni bu leen jaamu keneen ku dut moom waaye wabil walidayni ihsana sa ñaari way jur moom yëgal ni loo ci def ci lu rafet rek ak lu baax loola xeeb nan ko gis nga baat bi suñ borom jëfandikoo mooy ixsaan kalimatul ixsaan dafa ëmb mboolem xeeti maaruuf yi doomu aadama yi def xam nga dundalal sa jur ak jox ko mu lekk ak wutal ko fu mu dëkk yooyu ay détail la waaye borom bi ku ku ku ku leer la ay wax moom suñ boroom rafetal la jëfandikoo rafetal nag buñ ko xësee wax mboolem détail yooyu nga xam ne dañ ko doon faral di faram-fàcce day dugg ci baatu ba rafetal wallahi mbokk yi salafu saalix kenn ci ñoom daana wax kàddu fekk jubluwu ci gëdd way juram kàddu ga rëcc te xam nga rëcc nag dëgg-dëgg ku ne da ngay rëcc waaye dañuy dem ba ca marché ba jënd ñaari jaam goreel ko benn waaye dafa wax ak yaayam kàddoom jóg fekk gëddu ko de kàddu gay rëcc ndax léeg-léeg man ngay waxee sa morom sax kàddu gi rëcc mu dem ci marché ba jënd ñaari jaam gorel ko biñ ko laaje lu tax mu def ko mu ne da koy tuubalee yaayam tuubalee ko sun borom ndax lu tax kàddoom di gën a foor kàddu yaayam loolu ko naqari jàpp naa ne ki nga xamante ni ci woon naqaral way juram wala gëdd ko su dee moom moo mën jëf-jëf ju kon ki nga xam ne moom buy wax ak way juram wu góor wala wu jigéen nu ko neex lay waxee kooku war naa xoolaat boppam jamono yi passé am na benn njiitu ci njiitu réew juliti way juram faatu na jamono ji passé yàggul dañ koy nettalil nee nañ way juram dafa ñëw benn bis sëgg di fompal yaayam ay tànkam ki may wax ni mi ngi nekk njiitam réew ci réewi jullit ñi mu sëgg ci tànk yaay ji di ko fompal tànk yi yaay ji ni ko sigil nga bàyyi li ngay def waay yow fi mu nekk nii réew mi yépp yow la ñuy déglu ngay def sa yëfi ñàkk fayda yi mu ne ko réew mi yépp man la ñuy déglu waaye fi ne man yow laay déglu ki may wax nii am njiitam réew la ci suñ réew yi nu wër nga xam ni ab jullit la tey wax dëgg yàlla xamal nañ ko ay mbaax mbaax yuñ ko mën a tuddal bu soobee yàlla way juróom faatu na jamono yële suñu borom yërëm ko gis ngeen yonent yàlla ismail alayhi salaatu wasalaam yaa abati bàyyi sama ifaal maatu umar comme dañ la koo digal rek defal dinaa joxe foofu misaal ma ni jamono bu nekk lii defar sunu société ci fànn gu nekk mu ngi ci téere yàlla bi gis nga soxna su sell su baax mënut jur lu dul doom ju sell ju baax bu ko sunu borom nangulee ndax xam-xam ngeen ni Ibrahima ba mu yëkkatee soxna sa saa Haajara yóbbu ko ba ca àll ba ca ndànd foy foy ba nga xam ne risque bu nekk ma nga fa mu ne ko dëjul fii fii laa la dëj benn baat rek la ko wax allahu amaraka bi haada ah waaw sang bi lii moom sa xalaatam bopp la war a suñu borom da la kaa digal ndax booba xam na ni kii bi yonante la dañ koy digal noonu la saxaaba yi doon def lii sa xalaat la wala wax waxyu la allahu amaraka bi hada ah sang bi yow fii mën nar a bàyyi ci àll bu sore bii yàlla nii la la ko digalee mu ne ko waaw mu ne ko comme ndigalal suñu borom la duma ci teg baat daal di koy wan gannaaw gis nga dégg ndigal googu moo ko jural mu jur doom ju dégg ndigal dama laa gént dama lay rey mu ne ko ifaal maa tu'mar même bu dee rey sax defal sa tajiduni insha allahu min as-sabirin loolu di nga ci jàngee ne kon kemtalaay ni nga déggee ndigal kemtalaay ni ngay juree ñuy dégg ndigal kemtalaay ni nga wawee nga dëgër kemtalaay ni ngay juree ñu waw la te dëgër yonent yàlla alayhi salaatu salaam gis ngeen sunu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom fekkewul ay woy juram waye gis nga dem na ba ñaan sunu borom sax na jéggalul ay way sunu borom téré ko comme nam won ibrahim kenn du jéggalul ko xamé ne won ci diiné sahaba ya ridwanullahi alayhim non lañ meloon ci di jëfé ihsaanan ji ci alquran mbokk yi dañuy wax ni bo démé ci sahaba yonent bi ñaar nga fay fekk ño xamni ni morom ci topoto seeni wayjur muy harithata ak usman ibn affan Ousmane Ibn Affan moom nee na mënta décrire xar kanamu yaayam ndax rus geeg wegeel gi àggoon na ci Daawud sikki jàkkaarloo moom fixé ko xaarisata moom way juróom Daawud nangu muy lekkee loxoom moom da ko doon seexal te fekk nekku doon sax màggat waaye moom moo taamu di sexal woy juróom pour mu lekk ngir di ko ko bégalee benn bis yonent bi sallallahu alayhi daa yeewu ni Aïcha mu ne ko naam mu ne ko man ne damaa gént te xam ngeen ne gént ak yonent dëgg la Aysa ne ko loo gént mu ni ko man de damaa gént dugg àjjana dégg ay tànk ma laaj ko kan la ñu ne ma xaarisata la mu ne waaw xaarisa meen na ñu ni waaw ki lu muy def biir àjjana ñu ne moom kat dafa sonn ci di toppatoo way juram ba demoon na sax ba moo koy sexal pour mu lekk loolu la ko suñu borom fayee àjjana te xam nga loolu dëgg la ndax gént ak yonent dëgg la yonent bi yeewu daal di koy nettali saxaaba yi kon gis ngeen xaarisata noonu mu meloon ba loolu moo ko jural tàbbi àjjana kon bokk na ci nataay yi nga mën a am te njëkk koo am ci rafetal jëme ci sa wayjur mooy sababun li saadatika wa duxulil janna toppatoo say wayjur sabab la ci nga tàbbi àjjana te loolu am na yeneen xadiis yu koy saxal yu gën a leer boobu ci saxaaba ya ba léegi da ngay gis koo xam ni soxla su wayjuram Mum lay gëna sonn ci soxlay bopam kenn ci sahaba yi dafa rom xaritam mu yek ci kaw tandarma dal di dag ciari tandarma ya di luqati xol ba nga xam ngeen tandarma dafa am ab xol te xol bi ci walu teub day fajj bim ko laaje lu ngay def li te tandarma nga ngi menj ba ni muniko mu ni ko sama wayjur wu jigen mo soxla xolu tandarma te bu soxla won tol bi yep ma gor tol bi yep kon ñooñu ma ngi japp ni seen soxla su wayjur du nan allah est-ce que xam nga ni toppatoo sa wayjur day dem ba tolloog sax nga jihaad fi sabilillah benn saxaaba ñëw na ci jamono yonent sa salam ni ko man day damaa ñëw pour ñu recruter ma boole ma ci ñi dem jihaad mu ni ko ah say wayjur mbaa am nañ ku leen toppatoo mu ni ah, bu ma demee wax dëgg yàlla kenn du ko demal ca ñoom nga jihaad foofa boroom xam-xam ñu ni am na position booy toll toppatoo say way jur mooy nekk sa jihaad yow kon ndeke fonk say way jur def ihsaan jëme ci ñoom mën naa dem ba jural la sax jihaad ak uh, yoolub jihaad fi sabilillah ba léegi ci <clears throat> saxaaba yooyu ridwanullahi alayhim ajmain da nga ciy gis ñoo xam ne wax dëgg yàlla bu ñu la nettalee nañ doon jëflante ak seeni way wayjur ak ormaja dangay xam ni ñii ñoo mën a yar taabiuun yi taabiuun yi ak taabiu taabiin yi boo ci ñëwee nga fekk ci misaal yu bari tamit kadalik ci toppatoo sa wayjur bokk na ca yooya amna na benn waay bu ñuy wax bundar bundar dafa togon ci dëkk bi bam yagg ay moromam ni ko waaw kay ñu genn dem sakku ji xam-xam comme ni gaay yi jekki jekki rek xass ñu ngi dem barab sangam mu ñew tag way juroom mu jigen mu ni ko doo dem mu jëm kaw jëm suuf mu ni ko doo dem mu dégg ndigal way juroom tok moromam bi bañ jàngee ba ñibisi neena ñoom ñëpp bama leen kenn rawuma ma te musuma genn dëkk bi kon gëm naa ni sunu borom daf maa fayee dimbalee ma dégg ki ma dégg sama ndigalul way juroom ñaaral bi yaakaar naa yéen a ngi fàttaliku saxaaba bu taabii bu sell boobu nga xam ni li tey mu nekk saxaaba ginnaaw dogalub sun borom mooy toppatoo yaayam muy uways nga xam yonent bi dani woon saxaaba yi bis dina ñëw di ngeen dajeeg benn waay bu dëkk yaman ci dëkk bu ñuy wax xoran waa ji tudd uways dafa jiboon mooy xaw a xees xees goo xam la waye werna na dess des ab tuk bu tolok deureum ci yaram wi koko ku dajek mom na ko wax mu jéggalul la yalla ndax koko bu giñee dogu ci yalla pour mu def dara yalla da ko koy defal allahu akbar moy yow sun borom giñ ci yow tawal lu lan bëgg nga tawal léegi mu taw yent yalla bi amna ci nit ñi ño xamni seen ak seen selay ak seen baxay ak nangul sun borom ba sun borom fay leen yegg na ci buñ giñee ci dogu ci mbir ni yalla defal nangam sun borom def ko barra mi ngeen deg sahaba yi non la melol. motax kerek bam giñe Muni billahi tata bi dinañ ci dugg te dinañ jihad te may njëkk de sahaba yi ka ko nitil neena bama ba may njëkk de la laa ki mom kii ndax sa bu musaana giñ dogu ci benn mbir rek sun borom defal ko ko nam ko waxee nepp non la me. ubi nañ tata ba jihad nañ xex nañ faatu fa عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاب واخ جوجو با سي جامونو مولو مو غيس رك ني نيو مو لاتي واو يين فوغين جوغي يمن ني ني جوغي نيامن دي كوفا لن جوغي مو يين لاجوما لين مو ديم فنن يين فوغين جوغي يمن ني جوغي نيامن دي بصره لن جوغي مو واخما يين ني ديم فنن فوغين جوغي يمن ني واو ام غين كو اويس القراني في غاي دي نك نكال نخ كو سامبلون لا كو خامي دا خاوت بو ني ليك صاح دنج كاي فاتي كوي اويس بن واي آه،, اه اسكو دو كاي ني خار سونو خاريا te nga dem xol fe ba xam mu mel ni koo xam ne kenn fullaalu ko omar ibn alxataab waaxu ba ci mom ñëw ni ko waaw yow yaay al alqorani mu ni ko waaw ana sa yaay mu ni ko mi ngi dund da nga febaron febaru jip xolal yi tektal min alamat sidq sidqi nubuwa da nga febaron febaru jip mu ni ko waaw te yaram mi febaratu ndax mi ngi mi ngi mi ngi mel nam wara mel mu ni ko mu wér mu ni ko waaw waaye li wér am na lu tolloog wërngalub dërëm bu wéragul mu ne ko waaw mu ne ko kon yow la ma yonent bi waxoon sallallahu alayhi wa mu ne ko lu yonent bi waxoon mu ne daa waxoon bu ñëwee nan la jéggalul nga jéggalul nu yàlla Omar daal di sukk ci kanamam ne ko ma yàlla samay bàkkaar ak xooloo Omar ibn Xattaab ni mu toll Uways daal di gis ni kii mooy amirul muminin mu daal di ko yëkkati jugal jugal waaye yow looy wax nii daal di woyafal moom it Omar ne ko waxuma li ngay wax dama ne nga jéggalul ma yàlla ndax yonent moo ñu waxoon lii mu daal di koy jéggalul yàlla ba mu paree Omar ni ko foo jëm mu ne ko Kuufa laa jëm mu ne ko Kuufa am naa fa benn gouverneur damay bind benn leetar jox la ko boo demee nañ la dëkkal ca tabax yi gën a baax jox la nàngam ak nangam Uways ni ko déedéet loolu ngay bind jëru ko bëgguma ko bàyyi ma ma nekk rek fii xabra innaas li wala fi naan ma roofaloo ci biir mbooloo bi kenn du ma xam loolu ma gënal lu ma mën a am allahu akbar kooku lan moo ko teree nekk saxaaba dafa dogu woon ni day ñëw ci yonent bi yaayam ni ko déet doom bu ko def ndax boo demee dootuma amati ku ma toppatoo ndax moom rek la amoon ci ku ko toppatoo mu dégg ndigalal waajuram xañ boppam gis yonent bi xoolal gis yonent bi ni mu fooree nga nekk saxaaba nga xam ne radiyallahu yi ngay dégg yëpp da nga caa war a bokk mbokk yi ndax wax yu mel noonu ñu ngi koy xalaat radiyallahu yi ne ci alquran yëpp war nga cee mën bokk tey tey tey ci ngoon laqad radiyallahu anil mu'minin war nga cee mën a bokk waaye nga xañ ko sa bopp ngir sa yaay na kontaan loolu ko teree nekk sahaba moo tax suñu borom fayee ko lim ko fayee nii euh, ba léegi ci salafu saaleh am na benn waay bu ñuy wax ibn borom xam-xam bu mag la woon moom daf doon jàngale ba mu yàgg yaayam dikk ni ko hey ginaar yi jox nga leen cox bi mu ne ko déedéet mu ne ko jugal nga bàyyi li dem jox leen cox bi fekk ndonga yang ngi ko wër ay téméri téméri nit yo xamni ne fu ne leen juge nga xamni koku yow do ñëmé wax ak mom sax di wax bu baax néna mu ni ñokket tek téré yi dem may ginar ya cox ba paré ñëwaat tok biñ ko laajee ki kan la mu ni ki moy sama yaay ki moy sama yaay gis nga abu xanifata rahimahullah ku fonkon way juróom la daf doon jaay fëgg jaay di jàngalewaale di dundal way juróomu jigéen ci jamonoom dañ ko doon topp naan ko kaay ñu fal la nga nekk nangam kaay ñu fal la nga nekk xaadi mu bañ mu ni bëggul loolu benn bis xam nga comme amirul muminin bu la waxee dara sañ na la xëbal ñu koy xëbal maanaam xaw koo caw tuuti di ko xëbal pour ndax xam nga lii neexatu kaay ñu fal la nga xam ne yow dangaa ngaa waroon di féq féqu jëm ca ñu ne la kaay ñu fal la nga bañ bañ la cay caw ngir di la xëbal far yar bi rëcc teppi jëbi bi mu teppee jëbi léegi muy changé ni mu doon kaala woo day kaala ba muuraale wetu bët yi biñ ko laajee lu tax ngay def nii day wax ni moom yaayam daf kaa fonk waxuma la moom daa fonk yaayam de mu ni man sama yaay daf maa fonk fonkeel goo xam ni bëgguma rangoñam tuuru te moom it bëggut lu ma naqari te bis bu gisee sama góom bi dana jooy te bëgguma ay ñam génn muy kaalaw di we nëbbaale góom bi ba góom bi wér mu doog a dindi kaala ba kooku foofu la tolloon ci fonk way juróom am na ci koo xam ni baayam la nekkal ci biir kaso bi sedd jot baay bi mënta jàpp ci ndox mu sedd mi muy dugal matt di tàngal ndox gardien bi ne leen matt bu mu duggati ci biir kaso bi mu bàyyi ba guddi jot mu bàyyi ba nit ñi nelaw mu jóg dem ci làmp bi comme làmp bii di tàkk nii xam nga day am chaleur buy tàng ginnaaw gee ba fajar jot mu taxaw tàllal loxo bi nii ci làmp bi ngir chaleur biy jóge ci xam nga loolu mënut tàngal ndox mi waaye mën na koo nuggal ngir chaleur biy jóge ci làmp bi nuggal ndox mi ngir way juróom wu góor mën koo jàppee bu fajar jotee allahu akbar lii mën nañ ci joxe ay misaal yu bare bare bare bare yoo xam ni am na benn waay bu ñuy wax Hicham moom moom day xëy ratt bu rattee géléem gi daal di ko yët yaayam yaay ji ne ko fan yii yëpp maa ngi lay wax bul indi soow meew mi ndax boo ko indee du ma ko naan parce que damay woor mu ne ko gis nga même bu ma ko indee nga tuur ko sax sama xol sedd na ci ndax meew mi fanaan ci battab gëléem mooy meew bi gën ci meew yi te meew mi gën ci meew mi yéenewu ko kenn ku dul sama yaay léegi nag jëlal boo jëlee sama jaan wàcc na boo tuureeg boo mayee man sama jaan wàcc na xool leen boobu yëg-yëg mbokk yi kan ci ñun mooy koo xam ni soxla su way juróom toll ko foofu am na benn waaye dafa fekk dafa fekkee fu ñuy xutba ci jàkka imaam ji di xutba ci rafetal jëme ci say wayjur waa ji dafa jooy ba xalangu ci jàkka ji bi yëf ya paase biñ ko laajee lu muy jooy mu ni baayam daa faatu yaayam faatu mu xalaat xalaat xalaat tey jii li muy yëg ak ni mu bëgg a defalee way juram njekk te démb du tey looloo ko naqari moom la doon jooy subhanallah wallahi lu jar jooy la mbokk yi lu jar a jooy la xoolal yég yëg boobu kooku am tey ba mu jaral ko jooy ba xalangu ndax way juram dëgg la sax góor-góorlu na ndax def naay gëstu ba laaj ko ci way mu ne ma sama kaw pooj bi sama ci la sama way juru jigéen faatu maa koy xol meew di ko xol meew ba mu faatu wax wax yu rafet nga xam ne kii kon góor-góorlu na waaye mu dégg tey rijji na ab xolam rijjiwaat ko rijjiwaat ko yëngal imaanam ba tax mënatu koo kon massa moog ngallama yow mi nga xam ne sa wayjur mi ngi dund am na benn waaye dafa fekkee ci benn jàkka moom it fu ñuy tafsiree quraan kanoon tafsir di wax ci àqi wayjur ba mu xëyee fa mu war a liggéey da koo fomm dem kaw ga mu ne day xëy ngir dem jéggalu ji yaayam ngir li mu dégg tey kooka loolu dalay wan ni kon ba léegi nit ñaa ngi góorgóorlu de gis nga góor góorlu ci say wayjur day waral nga am alaamaatu xusnil khatima comme nim la meuna jurele dukhulul janna ben cheikh dafa nek ci ben jakar def ben muhadara bi muhadara bi jeex am ben way bu ñëw seug ci nopp yi ni ko ah amna lu xew de sunu mak de mo faatu legi te comme yàlla dogal na nga ñëw fi def muhadara bi dañu bëgg nga ñëw sangal nuko ko nuko ngir ñu man ko tino mu ne ko bismillah momin mu dal di jokk ñëw futteeku sang néew bi jullee ko bi mu paree mu woo rakk ji ne ko kaay mu ñëw mu ne ko yow kii lu ngeen bokk mu ne ko sama mag la mu ne ko loo xam ci moom mu ne ko ah lu laaj bi mu ne ko damaa gis ci moom ay màndarga yu ma yéem mu ne ko lu mat nangam tub ab lim ci màndarga yoo xam ne kuñ ko gis ci moom day wane ne xusnul xaatima mujjantalam rafet na da ko gis ci néew bi mu ne ko man daal li ma ko xamal loo xam ne ñeewoon naa ko ci mooy sunu yaay moom daa mel ni benn doom la jur muy moom waxuma la da ko doon toppatoo waaye nee na comme champion lañ ko champion mooy li jigéen ñi defee seen bopp yi mu ne moom sax moo ko doon duggi marché di ko jëndal sama yaay nee na saa saa moo doon peñe sama yaay moo koy raxasal boppam moo koy diwal boppam moo koy fompal ay tànkam di lim di lim di lim bi mu limee ba àggal mu ne ko am naa rafet njort ci ni loolaa ko jural xusnul xaatima lii may wax nii benn borom xam-xam bu mag macha allah moo ko nettali ci benn muxaadara toppatoo say wayjur def ihsaan jëme ci ñoom bokk na ci lim mën a jural nit ki mooy jur kurbaat xat-xat boo nekk rek yàlla dana ciy gindi xam naa ñaari nit yoo xam ni kenn ki nee na moom bi mu tàmbalee toppatoo juram ay way wayjuram ba tey dafa yëg ak yokkute ci dundam yokkute goo xam ni saa bu yëkkatee am njekk def ci waajuram rek day sentir ak dollee ko ak avancement ci wàllu àddinaam keneen ki moom waajuram faatu na nee na moom bu amee aajo ju ko ñor dëgg dëgg dëgg day julli ñaan yàlla def tawassul ci jaamu yàlla yam doon def ci way waajuram te tey faatu na nee na musu koo def lu dul yàlla dana ko fajal aajo jam nekk ak lu mu xat-xat yii may wax yépp ñu ngi dund soo gisee léeg-léeg ñuy joxe misaal yi ñuy dund xëy na lëmal turiya day tax nga xam ni ndekete fi ne bu la baax tëye rek yow la të waaye am na ñoo xam ni ba tey ña ngay mel na gaaya meloon góorgóorlu rafetal jëme ci say way jur bokk na ci li muy jural nit ki mooy tey siirul umur mooy say mbir yépp yàlla da koy yombal boroom xam-xam yi dañuy wax ni saa boo gisee nit ki mu raw la mu raw la pour nga vérifier lu mu raw la mu ni bala ngay dem di sonu gëstul ñaari point kuy yaayam kuy jabaram leg leg jigen soxna day tungom jëkkër bam raw ak masam yaay day tungom dom bam raw ak masam gis nga guddu fan ak wërsëg wu yaatu soko ko bëggee da ngay rafetal jëmi ci say wayju yent yalla ne ku bëgg yalla guddal saw fan yok sa len del jokk sak bokk am beneen riwaay imam Bayhaqi mu ni del toppatoo say way wayjur te jokk sa mbokk gis nga ki nga xamante nii day toppatoo ay wayjuram sunu borom dana ko ubbil xeeti wërsëg defal ko ak jàppandal ci wàllu liggéey maa ngi koy nettali bokk yi ma ni leen fii sax donte ci aada lañ daan dund ñun ñi yaroo kaw ga dangay gis ni ay dem ci buxaaba yeeg sëriñ yeeg yooyu naan ñaanal ma façon boobu am na dëkk yu xewutu woon am na dëkk yoo xamante ni dem ci sa baay wala sa yaay ko ñaanal ma damay defe examen suba loolu moo xewoon ndax dañoo gëmloo woon nit ki ni ko sa way jur su la ñaanalee ñaan gi day nangu te loolu wér la ndax loolu xadiis la comme safaan bi su la ñaanalee lu safaan tamit day dal ci sa kam yàlla xam na ne xam naa ñoo xamante ni seen liggéey yu baax lañu yor seen yaayeen leen naan liggéey bi neexuma rek ñu bakku te liggéey bi du doon ay liggéey bu araam de du doon araam de maanaam xam nga mat yi dafa am yenn xeeti yar yu nu amoon yoo xam ni dañu gëm ni yeen xéeti liggéey dal sa bop la même bu haramut diw sangam mi bëgguma nga tak ko dé nga préférer bayyi ngir déggal sa wayjur fofu nak ma ngi bayyi lo xel mbokk yi dëgg la sa wayjur ya nek ci dëgg rek taxul la neex rek sañu la téré li ah dama bëgg def nak sama yaay ni ma bul ko def est ce amna ci droit ñu la laa ah, sañu la ko téré nga luma neex def dédé sa wayjur sañ na la téré lo xamni l'islam waxu ca dara wala bok mom boo fipp woon nga def ko doo ci am bàkkaar waaye ixsaanan mooy tax nga ba ko ixsaanan rafetal jabru xaatiram mooy tax nga def ko ñu bare bari ci ñun góor-góorlu nañ trop waaye bu ñu yegsee ci bunt bi seeni wayjur dañ naan leen def leen nàngam man xam naa waajoo xam ni euh, liggéeyam dafa xat xam nga leen nga gis nit ñoo xam dañoo xat ci liggéey ba daanaka gis leen wala am ak ñoom audience wala woo leen téléphone jot leen lu jafe la xam nga loolu ñun ñëpp xam nañ ko waa ji liggéeyam dafa xat ba moom it noonu la mel waaye ñi ko bëgg a jot dañoo xam ni mu fonkee yaayam ku ko soxla day dem jël numéro téléphone yaayam wooyee ko ci ndax moom lu mu jàpp bu gisee numéro yaayam day jël benn bis benn rakkam moo ne ko ah jàpp naa la ah xam naa ne léegi ku la bëgg a woo xam naa nu nuy def. ndax doo tam xamul sa yaay xoolal xoolal mbir mi fi mu yegg te du caage ni mooy tay taylu di bañ a jël nit ñi parce que liggéey tamit dox dëgg yàlla day toll foofu ay responsabilité day toll foofu waaye fi mu ni ku ko bëgg jot rek da ngay dem làqatu ci téléphone yaayam pour jot ko ca parce que xam nañ ni moom boo ko woy ci numéro yaayam même boo ko jotul fi saasa buy gis numéro bi rek di la woo lii may wax nii mi ngi am tey kon ndekete dëgg-dëgg boo sàggana yow ci sa yaay yaa ngi nekk koo jàpp ne yaa ko gën a góor góorgóorlu fekk lam la rawee sax daanaka baadil mashriqayn fekk mi ngi la rawee ci way juram su ko defee danga gis suñu borom dottil ko ci ay xeeti xéwal àddina akuk texeeg ak jekk ay jaamu yàlla loo xam ne yow mënoo ko fekk boo ko seetloo ba ci biir góorgóorlu gi mu góorgóorlu ci ay way juram moo ko ko jural dafa am benn borom xam-xam bu mag bu wax ni gis nga sàgganee say way jur ak fo ba tuur seeni rangooñ nee na musiba du ko gën a rëy nee na rangooñ yi ni muy waddee di tàng jër yëgal ni noonu la meram sunu borom di waddee ci sa kaw di tàng jër ci sa kaw di wax na dëgg mbokk yi mbaa amul kenn ci ñun koo xam ni mas naa sàggan ba tuur rongo ñu way juróom ak lu mën a xew nag laajuma moo la tooñ laajuma yaa ko tooñ maanaam nekkuma ci buntu àtte ndax yaa am dëgg wala amoo dëgg ndax loolu meneen masala la meneen masala la waaye moom même yaa nekk ci dëgg wala nekkoo ci dëgg moom rangoñam bu mu am na benn waayit dama koo xam waji bima ma tout tank ba tay mang koy xam ma seetlu ni façon xeetu teranga bu ne sunu borom tek nako ci loxom waye mën ta réussir affaire bi jaa ma maa jaaxal nag ndax lii may wax ni defena mi ngi bëgg ëpp ñaar fukki at kon yàgg na affaire bi yàgg na maa jaaxal jamono yi dox ba kenn ci mak ya doon dund ak bayam nettali lima nima diw sàngam bis sàngam mook baayam nangam wax a wax wax ba àggal mu ni keroog baayam dana yëkkit jooy dal di koy ñaan yàlla mu al waaja xam naa ko xam naa baayam gis nga bi ma boolee wax ji ci laa ne ah kon ndeke lan doon jàng ca téere kat ndeke gëmoon na ni dëgg la waaye nag gën na noo gëm ni dëgg la kon ndekete lii kat dafa nekk kon nekk noonu tawkiit di gën a dëgëral gis nga nit ki bu sàgganee ba tuur rangoo ñi way juróom na yek ni yak na ci ak dundam lo xamni ni jëratu ko teyit nag boo sàggantul waxuma sax ay mbirum te xek tabbi aljana way fi ci adina teranga dina daw ba ci saroon xarantay tank te ndiglu jappandi pour seug doo ko am fek sun borom mo la ko xagn ndax nga foye say wayju abdullah ibn abbas dafa tok bam yag dadinya way dal di ñew di joy muniko lu xew muniko man dama def lu upp muniko lan nga def mu ne ko dafa am benn xale bu jigéen ma bëgg ko dem labat ko ñu ne duñ ma ko may ñu may ko keneen ma dajeeg waaja fiiraange jàpp ma rek ma jam ko mu dee léegi nag fin toll nii nag nu may def ba tuub laa bëgg Abdullah ibn Abbas ni ko man kay fi ne xaw ma nooy def demal man yàlla subhaanahu wa taala li wax ci alquran mooy ku rey ab bakkan te fekk kooku jullit la moom fa jazaa'uhu jahannam sawara ngay dem demal rek waaja ndeysaan gën a bënn bët yi daal di jóg dem xamna bi mi dem ba ci yoonu abdullah ibn abbas dali am lu mu xalaat ni wol len mako ñu wo ko mu ñew mu ni ko sa bay mi ngi dund mu ni ko déedéet mu ni ko sa yaay mi ngi dund mu ni ko waaw mu ko tuubal yalla dal xawma ma lu ma ni boko don def yalla man la dimbali ba raw dem gor ci sa ron yaay di top top lol dal la am rafet njott ci ni boko defé sa bakkar suñu borom man la ko faal dem mottalee ak ndam ci way juro bu kon gis nga rey bakkan ak loolu ci suñu borom wax bu nee bay ubbil nit ki bunta topptool sa way jur ngir di ci am yaakaar ñu faral ko bàkkaar bu doy na rey nit ah, jàpp naa ni kon nit ki war naa xam ne toppatoo jur lu rëy la waaye comme ni nga xam ñàkk koo toppatoo it safaan bu rëy la déglu naa al cheikh al allaama xafidahullah muhammadul amin shanqiti mu jàngale benn darsa ba nopp benn waaye laaj ko ko man de sama way jur wu jigéen moom dafa bëgg bis bu ne bis bu ne ma seeti ko te man ni ma occupé mënuma loolu mu ne ko da ko bëgg mu ne waaw mu ne ko bu fekkee da ko bëgg da nga ko war a def subhanallah alazim maanaam bëgg na ko rek sa yaay daa bëgg bis bu ne wàccal jaar fa amaan na balaa maa leeral masala moomu kenn ci yéen mi ngi naan ah waa loolu dina jafe de defe naa loolu ngeen di wax moo ne jafewul xam nga lu lay wan ne jafewul lan moo tax mënoo koo seeti bis bu ne lu tax mënoo seeti meer bis bu ne sa occupation sa liggéey directeur bi la fal ba nga occupé ba mënoo seet si maire bi kooku yaaya ko gën a foor farlu gi nga def ba doo tardé ci liggéey bi te kooku yaaya ko gën a foor ñun ñëpp foofu ngay xamee ni kon da yaa yaakaar ne jafe na waaye jafewul tey sa yaay bu fekk xanaa mu nekk lu mënta nekk ñu xam ne lii moom à ah distance bi mënul nekk boo ko bëggoon du sotti waaye sa yaay bu bëggoon saa boo wàccee da ngay jaar këram doog a dem billaahi xam nañ ay nit yoo xam ne dañuy wàcc duñ nuyu seen baay seen biir kër duñu nuyu seen baay. dañuy wàcc duñu nuyu seen yaay loolu mi ngi am ci biir kër yi imagine loolu am na benn waay boroom këram da koo soxla benn jigéen boroom këram da koo soxla mu bañ te lii bëgg naa jigéen ñi bàyyi ko xel bu baax mu lànkal ko ci kaw lal boroom këram bi di ko naxtaan mu ni ko da ngay dem fële ci ruq ba nga raam ba yegg si fii boo ko defut duma la jox sama bopp comme moom it boobu tawul na foo xam bëgg la mooy yàlla te yëg na ni musiba am na nar naa am mu daal def li ndaw si wax mu raamee fële ba yegg si fii bi mu yegsee faj aajoom ci soxnaam dem ndeke doom sosu na ca doom ji bi mu juddoo day raam mënul dox dafa judd di raam mënul dox fu ne ñu yóbbu fa faj jéem jéem jéem dara sottiwul mu daal woon di xale bi ni ko kii jarul ngeen di sonn ci moom kii du dox insha allah parce que way juróom moo ko liggéey keneen ki dafa romb ci courant bu coupé bi jëkkër ji daal di koy fel fel oom bi waaye yow yaa ngi waaye doo puus sa tànk bi nga soof ba bëgg a dee yaa ngi xam ni fii yoon la parce que nga defi teg sa tànk jëkkër ji daal di tuur ay rangoñ guddi googu ñu jot ci doom daal di juddoo gis nga doom ji juddoo ci garabu kooni la yéeg kooni mooy garabu forme tàndarma yooyu kooni yi ngeen di lekk nii xam nga garabam ak ron lay doon day njool ca kaw ca la yéeg rek musiba dal ko ca am na benn waay boo xam ni dafa am xale bu jigéen bu mu doon bëgg way juróom bu jigéen ni ko doo ko takk ñu discuter ci ñoom ñaar ba dënn yi jóg way jur wi jigéen ni ko doo ko takk mu ni dana ko takk nijaay yi wax mbokk yi wax ñépp wax mu dëgër bopp ni da koy takk yaay ji mere ko ni ko boo ko takkee la jaan màtt nga dee wax ja daal di jeex ba jamono soppeeku mu takk ndaw si bis bi mu ko takkee fekk ca kaw ga la ci guddi gi ay xaritam di ñibbi mu di leen gunge muy romb ci wetu ngeer gi rek jaan ji daal di koy màtt bi ko jaan ji màttee ci guddi ceet boobu foofu la faatoo dëgg la way juru juum na def na lu lu baaxut waroo yontu day tere nga ñaan sa doom lu bon waaye nag moo tooñ boppam parce que yaa nekk ci dëgg ak nekkoo ci dëgg kooku ñun léeg-léeg masaa'il yi dañ leen di jaxase xam nga léeg-léeg maam ñun li ñuy trompé mooy masala yi da nga leen di jaxase way jur wi moo nekk ci dëgg ak maa ci dëgg kooku menn masala la waaye waroo sàggan ba mu lay ñaanal lu bon parce que bu la ko ñaanalee day dal kooku meneen masala la loolu bokkuñu de maanaam yow ci sa jëmmi bopp yaa wërte yegg ak moom fu mu lay ñaanalee maanaam même boo ko doon neexal di ko raamal sax na nga fexe bu mu la ñaan lu bon kooku moom da ko war a liggéey moom dañ koo tere mu ñaan la lu bon waaye yow dañ laa nga def lu tax du la ko ñaanal bu la xësee ñaanal ñaan nga day dal ci sa kaw kooku jotewut ak ndax war na koo def ak waru koo def moom war na koo def ak waru koo def déet waru koo def dafa juum waaye nag yonent yàlla bi nee na bu kenn ñaan lu bon ci way juróom foofu bi mu wax waxul ni yàlla yaa ko tooñ bi waxul ay maa ko tooñ gis nga ba mbirum tooñ yonent bi dañu wattu leen tooñ parce que ki nga tooñ ñaanam day dal même bu dee ab yéeféer la xam nga affaire bi dafa leer kon waaye fii dañu bu leen ñaanal seeni doom lu bon ndax bu ñaanee day dal foofu la yem nekku fa di expliquer naan yaa ko tooñ moo la tooñ yaa am dëgg moo am dëgg kon yow yaa war a fexee bu mu la ñaanal lu bon am na benn waaye baayam moo ko mere baayam moo ko mere ni ko yow ni nga tàngalee sama xol bi yàlla na la yàlla xañ doom même boo takkee jabar yàlla boo am doom waa ji fu ne jaar na ko ci àddina mënta fexe ba am doom lu ne nag am na ko ci teraanga nag teraanga lu ne am na takk na ay soxna am nay teraanga faju na dem na Europe dem na fu ne waaye ba tey mënta am doom lu ko waral parce que way juróom moo ko ñaanaloon lu bon loolu waxuma la nag biñ nee la meram yàlla mi ngi aju ci way jur daf laa mere am na sunu benn waay way juróom wu góor daf koo mere woon fekk mi ngi toll ci feebar feebar boo xam ne ca feebar bu la faatoo ma ni ko lii may wax ni sax mi ngi bëgg a yàgg ndax lii ba ak léegi fukki at juróom defe naa mat na baa mu teg ma ni ko man de li ma jàng te xam ko mooy ak lu mën a xew yaa ko tooñ moo la tooñ ak lu ngeen jote benn explication man soxlawu ma ko li ma soxla mooy demal nga jéggalu ko bala mu ko faatuwaale gis nga bu ko faatuwaalee di nga réccu ci sa dund loolu juddoo yow الحمد لله سونو بارام ديفال كو توفيق بام ديم جيغلو واي جو تيغون سي اب ديروي جو ريفات ليما جيبلو سي نيتالي جي موي ني بري سي نون دانكا مان ناني مير لا سا واي جور يوبال الاخره سي ياو لول لوما تباي خيل لا مباكي باسكو دينكو بغا ريتيفي موتلا نيت داي بغا جند تيري باراب سانغام سا ياي ني فوفو نيهوما ديمال جند فلي man xamna ko xam bi yaayam dana ko fi do fi luyé demal luyé ji ba mu bayyi lam naron lepp ay choix yépp mu bayyi ko def la way jurum bëgg ak yenen yo xam da ngay gis ay nit dañuy top seen wayjur ba man dama nan ah ci wax deug yalla top gene wayjur wa ngi lay bëgg a lor nak amna ko xamni même ay domam fim nek ni buñu démé buñu démé jangi ca dara ja fet jot ñu dem seen mam bu jigen ndax mo jor seen yaay fi ak waxul xalé yi nañ ñibbi du ñibi ak lu mu bëgg-bëgg lu mu gëm-gëm sunna mère bi dal moy joxe digal li ngir fonk go xamni fonk nako wayjur mu jigen kadalika noonu nga gisee ay nit yoo xam ni daanaka mën naa ne fi mu nekk nii ñoo raw ay solaar wun dara donte sax mën nañoo askanoo sunna nag fekk boo xoolee lu ndaw moo leen ko yóbbee mooy sàggan ci seeni wayjur ba tàngal seeni xol rangoñ yay yëgal ni sawara su tàng jër lay nekk suy këpp wat ci sa kaw fi dunia wal axira kon mbokk yi nu ngi soññ suñu bopp di soññ suñuy mbokk ñun ñëpp ñu góorgóorluwaat rectifier weesa gut ndax dundu gi jeexagut amaan na kenn ci ñun way juróom ñaar yëpp ñi ngi dund amaan na ñaar ñëpp dundul waaye kenn ku góor kaa ngi dund wala ku jigéen ki xëy na ka way juróom faatu moom mënut lu dul di leen ñaanal yàlla subhanahu wa taala rabbi rahmahuma kama rabbayani sagira ak léeg-léeg sax mën nga saraxe yéen leen yool ba loolu sax na ci sunna ak yeneen yi nga xamante ni xëy na sunna saxal na ko waaye maa ngi soññ sama di leen soññ ñu góor góorgóorlu bu baax a baax ci sunuy way jur yàlla na yàlla boole ñu ci mbooloo mi nga xam ne ñoom dañuy rafetal jëme ci seeni jur ba amee ca sa aada fi dunya wal axira yàlla na borom bi musal ñu ci mbooloo mi nga xam ne ñoom dañuy sàgganee seeni wayjur ba mu jural leen ay alkande di ñaan yàlla mu boole ci ñi nga xam ne suñuy wayjur danañ kontaan ca ñoom te kontaan te ga ci ngërëmal suñu borom